بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam mbokki jullit yi ñu ngi dellu siwaat di ànd ak yéen ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci qisasul anbiya ba tey ñu toll ci diggante Muusa ak Firawn àndoon nañ ak yéen ci kàttanu borom bi ba toll ci firawna fi mu bëggee tiitale xeet wi tere leen gëm yàlla tabaraka wa taala te mooy defa ne bu utiliser dooleem ci rey njabarkat yi peuple bi dinañ deltu ginnaaw mu defa ne moom firawna ak gàngooram ñoom ñu jàpp ne ku gëm yàlla tabaraka wa taala karwaas wala kaso wala kënu mën na ci moom dara loolu ñett yooyu rek la ñuy tiitalee way gëm yàlla yi tey ci àddina te xamuñu ne yooyu day xamb ku gëm yàlla day tax mu gën a dëgër njabarkat yi bi ñu ñëwee ci kanamu Muusa daal di génne seenum njabar firawna gis njabar gi ni mel ñu yaakaar ne ñoom ñoom ñooy gañe yàlla ne Muusa bu ragal maa ngi ànd ak yow sànni li nga yor dana won ñoom lañu àndi yonent yàlla Muusa daal di sànni ci xissa yi passé ni ngeen ko déggee woon la mu indi la mu sànni woon daal di wann li njabarkat yépp indi njabarkat yi lan lañu def ba ñu xamee ne lii du njabar lii dëgg dong la mën a nekk dañoo sujjóot ci kanamu Muusa daal ne amanna bi rabbi Muusa waaw gëm nañu yàllaay Muusa ak Haarun ah lu waroon foofu Firawna mooy li war a njabarkat yi rek mu sujjóot rek comme ni gars yi sujjóotee waaye buur buur bu baax dana néew ci àdduna parce que buur luñ ko xamee mooy ñàkk a mbaax parce que bis bu nekk buur li koy jay mooy li ko wër ci gàngoor ci ay garde ak arme ak alal ak ñëpp naan ko yow la moo tax buur bu baax ci kaw suuf day néew yàlla day wax ci Qur'an ne innal muluka iza daxalu qarya borom xam-xam yi ne fa kayfa iza sakanuha su fekkee buur bu duggee ci dëkk day yàq dëkk bi kon bu fa dëkkee nag waxi noonu Firawna ne njabarkat yi ah yéen da ngeen di gëm yàlla te xaaru leen sama ndigal ndekk kii mooy seen kilifa gi nga xam ne moo leen jàngal njabar leen moo fi nekk dafa am lu mu leen won am lu mu nëbb moo tax bisub tey bi mu noot leen waaye danaa leen rey te rey bu metti laa leen di rey danaa leen yeew ci biir garabu tàndarma yi xam nga loolu day jaaxal nit dinaa leen yeew ci biir garabu tàndarma yi ku yeew nit ci garab ci kaw nga ko war a yeew wala ci biir ci kaw waaye baat bi mu utilisé mooy tekki ne waxu leen dinaa leen yeew ci kaw garabu tàndarma yi waaye dinaa leen yeew maanaam yeew bi dafay metti ba mel ne buum bi dafa xëcc seen yaram yi dugal leen ci biir wala usallibannakum fii boo xoon alaa ñu ne ci kaw la waaye fii la wax dafa dëgg daf leen dugal ci biir dinaa dagg seen loxo ndeyjoor ak seen tànk càmm gis nga li mu wax ni mu gravé yëpp mu yaakaar na ñooñu dañuy dellu ginnaaw ñooñu ne ko fokk di ma anta xoot defal li nga war a def rek innama taqdi hadihi alxayatu dunia li nga war a def daal bu yeboo nga def ko li wër tey biir mooy ñun gëm nañ yàlla ba pare defal lépp loo xalaat fas na ma anta soni innama taqdi hadihi alxayatu dunia defal loo neex àddina rek nga mën dara waaye àllaaxira mënoo fa dara ñun ñii su fekkente ne li ñu gëm yàlla def laa metti inna amanna bi rabbina li yaxfira lana xataayaana ñun de gëm nañ suñu borom ñoo ngi am yaakaar yàlla dinañu jéggal suñu bàkkaar ak wa ma akrahtana alayhi min assir ak li nga ñu forcé ba ñu taxaw fii tey di concours ak yonent yàlla am yàlla ñun de yow yaa ñu forcé de li yaa ñu dugal ndax yaa dugg ci dëkk bi recruter ponkalu njabarkat yëpp indi leen tey yow yaa ngi dugal wallahu xayrun wa abqa foofu lañ yemoon ndeysaan xam nañ ne Firawna leen di rey ñu ngay ut ndimbal ci yàlla ñu ngay sukkandiku ci yàlla ñu nga naan rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin te yàlla yàlla nga sotti suñu kaw yàlla nga sëmbërtal suñu kaw sotti muñ yàlla nga sotti muñ ba bu ñuy rey kenn ci ñun du dent ginnaaw kenn ci ñun du sëq kenn ci ñun du du ko wante ne damaa ragal dee yàlla bis boo ñuy rey yàlla nga fekk ñu nekk ay jullit moo tax borom xam-xam yi di wax ne ñoo julliwu wooruñu defuñu benn xeetu jaamu yàlla ci àdduna waaye du defuñu dara lan lañ def wax leen moom dañoo julli dañoo gis dëkk nangu dëkk ñu rey la ñu dugg ajana bon xoola ak li ñi liñ nekk woon yi su fekkoon ne ay milliardaire lañu woon ci njabar xoola seen alal jooju noos nañ ci ba doyal ba pare dugg aljanna li ngeen sababu tuub tuub day dindi lépp loo defoon ci ginnaaw waaye borom xam ne ak tawbatu te jubbu maa xam laha tuub day dindi lépp bàkkaar yoo defam ak ku mën a tuub nag ni yàlla baale woon yee noonu la lay baale gis ngeen xam ki rayoon Hamza nu mu tudd Wahshi bi mu yaakaaree ne bu tuubee yàlla na ko baal ah ak ki ko reylu woon xëy bi mu tuubi bi mu yaakaaree ne yàlla du ko baal lan lañ ko wax laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba dara du des jamian ndeysaan yàlla baax na wala nit rek judd di tooñ yàlla di tooñ yàlla di tooñ yàlla ba sax si kii mun a yàlla léegi dana maa bëgg a dellu yàlla ma boo ñëwee ma baal te ñun ñii rek am nañ koo xam ne boo ko tooñee ñaari yoon pare na ci yow bu doon sa jëkkër sax wala sa jabar wala sa doom wala sa papa wala sa wala wala da ngay gis koo xam ne def na ay erreur rek jubale nañ leen mu ne waa bu mu amaat waa ji daal di juum defaat ko wala mu tey sax defaat ko ñu ne ah waa ji mu ne kii xanaa àllaaxira waaye du àll wala mu ne bis boo ko defee bàyyi naa la àdduna ak àllaaxira pourtant yàlla bàyyiwu la de yow boo tuubee rek yàlla baal yow rek nga ni kenn du tuub moo tax yàlla du suñu morom mbokk yi lan la Moussa wax gaa yooyu nga xam ne Firawna nee na nga leen indi mu ne leen istainu billahi wasbiru istainu billahi wasbiru sukkandikoo leen yàlla bare nag te muñ lamma tahayyara Firawna fala yadri maza yasna min nabiyillahi Moussa bi Moussa gë bi Firawna gëlëmee nag yi mu gis wax dëgg yàlla li ko waroon rek mooy li war njabarkat yi waaye comme bañ na mu gëlëm chaque jour li am ci àdduna benn xeet kese la benn façon kese la nekkul ay façon yu bari Firawna bi mu gëlëmee xamul lu muy def xamul lu muy def Moussa dafa dajale ñooñu ñu naan ñooñu ñu naan ah dafa dajale conseil yeeg yëpp cumbur cumbur yi ko dajale leen ñoom ñëpp mooy malab ak akaabir ponkal yi waaw min qawmi firawna firawna ne leen kaay leen ñu xool mbir mi lu ngeen yaakaar yàlla moo ñu nettali loolu ci suratul araf aya 127 firawna ne leen qaala almalau min qawmihi ay min qawmi firawn qaala almalau min qawmi firawn atara atadruna musa wa qawmuhu liyufsidu fil ard wa yazaraka wa alihataka est-ce que Moussa Firawna bi mu dajalee gàngoor gi ci biir palais bi di diisoo ñoom lan lañ ko war a noonu mooy ragalal yàlla nga tuub lii moom dëgg la lii ñun ñoo ci teg ak suñu gis nga njabarkat yi li leen tuubloo loolooy dëgg lan lañ ko war a noonu waaye dégg nga mbooloo mi liñ ko wax yàlla ne wa qaala almalau min qawmi firawna benn mbooloo alquran yàlla mala yi di ci wax yi benn baax mala yi nekk ci alquran baax mala mooy ñi nekk ci dëkk yi di yàq kon quartier boo dem notable yi ñoo koy yàq ñoo yàq jàkka ji ñoo yàq quartier bi fu nekk ay du ñu mat sax fukk nag benn mbooloo mu ndaw la ñuy nekk kenn du wax kenn du soqal ku wax ñu agressé la ñooy bokk sax grand place bu ñu ñëw ci jàkk ji foofu la ñu jógee ci grand place ñëw ci jàkk ji mu tax fopp ñoo koy masaloo boo gis kenn ki da nga gis keneen ki ñoom dong ñoo ci am lu leen neex ci dëkk bi mooy am ñooñu lan la ñu wax Firawna ñu ne Firawna da ngay bàyyi Muusaa mii ak ay nitam ñuy yàq suuf si lan lañ nam ñu yàq suuf si ñu yàq dëkk bi su yàq dëkk bi lan lay jur mooy ñu bàyyi la yow Firawna ak sa yàlla xam nga loolu ñaari baar yooyu lu tax ñu sës ko ci ñu bàyyi la yow ak sa yàlla xam nga lu tax xam nga lu tax ñu sës ko ci pour mu xam ne kon nguuram ngi day daanu ku jógul ci mbir mii dafa nar a torox noonu nañoo yem rek ci atazaru Musa li wa qawmuhu li yufsidu fil ard mu noonu nañoo yem ko dangay bàyyi Musa mu yàq dëkk bi waaye bu yàqee dëkk bi yow lan la lay jural wa yazaraka wa alihaka danañ la bàyyi yow bàyyi sa yàlla kon kay moom mu ne mooy yàlla kon kay du yàlla xanaa ma mu ne ñoom ñu ngi préparé ay coup ñu ngi préparé coup d'état la jëlale ci nguur gi kon nag yeboo nga préparé ndeysaan Firawna daal di jël parole ne leen bu leen tiit ñoom suñu suuf la ñuy nekk ba àddina bi di jeex du ñu mës a tegu suñu kaw pexe bi mooy lan sanuqattilu abnaahum wa nastahi nisaahum wa inna fawqahum xaasiruun gars yi bu leen tiit ñii duñ ñu doy sax gàllax di ndax danañu rey góor ñi bàyyi jigéen ñi waaw danañu rey seeni doom yu góor bàyyi doom yu jigéen yi ñun ñii ñooy tegu seen kaw ñoo leen di noot ba yowmal qiyaamati bi loolu amee xaarul sax ba ginnaaw suba fi mu ko waxee la tàmbali exécuté loolu te xam ngeen ne Firawna balaa muy defaat li tàmbali woon na ko ca kañ balaa Moussa di juddu balaa Moussa di juddu la ko tàmbali di rey di rey di rey ba Moussa juddu mu arrêté ko bi woote bi tàmbalee nag ba mu yëg ne danger menacé na ko mu daal di tàmbali di reyaat xale yi góor yi ñaari rey yi du benn de rey commencement ak rey bi du benn lan moo leen wutale waaw dégg naa sa jant yow lan moo leen wutale rey bu njëkk bi dañ ko ne jabarkat yi ñoo ko ne am na ku lay folli bis bu juddoo dina la folli mu ne kon naa rey góor ñi bu kenn waaw loolu moo ne yàlla du nit foofu bu doon yow la nga programme nooy def danga koy aj waaw danga koy bàyyi ba ba ba ba 2014 ba 2015 2017 fekk firaw na dee te incha allah ma ma daal di programme Moussa ñëw waaye yàlla xoolal programme am dèjà am na benn xale boo ngi toog maa wax bu garaaw day ñëw ci jàkka ji papa ji di ko tere yenn saa yi mu dóor yenn saa yi am na nit ñu nekk fii à côté bu ñu ko fi gisee dem wax papaam dem na fa de dem na ca ibaadu ya de gis nga de ndeysaan yéen ibaadu yi moom yéen lan ngeen àndal ba nit ñi bañ leen dem boole ci papa ji dóor ko xas ko fan yi mujj yi papa ji mu ne ko damaa feebar mais bu ma wér di la génne dëkk bu ma wéree génne la dëkk yàlla génne papa ji dëkk bi vendredi ma julli àjjuma ba daje moom ma ne ko an sa papa mbaa mu ngi tere mu ne sa papa ngay gaañu la gis nga yàlla yàlla bu tëralee benn programme bu la yow nga ñëw nga yëngu lii du fi am yàlla dina ko wutal nga bàyyi ñëw rek ko wutal nga bañ yàlla nga daal nga ñëw nga effacé nga bay sama rëdd nga ne yàlla du am yàlla mu la daal boo ko bëggee effacé day xar suuf si ñu dugal la suuf si képp la mu ne dafa programme tuuti waaye li yàlla bëgg kenn mënu ko téye moom benn oustaz dama doon ne bu ma duggee ci kaaba gi ma dégg allahu akbar allahu akbar mu ne abu jahil yi fen na de yéen a ko yóbbu ci kaw gis nga wala gis nga yàlla lu mu wax day dem kaw kenn du ci dal boo leen Algérie bi commencé di xaj sax ba léegi boo leen américain bi commencé di bombardé ba léegi arrêté na maanaam fu ñu bombardé feneen tàkk bu ñu demee fee feneen tàkk fan lañ nekkoon jamono yële Afghanistan ñu jógee Afghanistan dem Irak fu ñu nekk tey ñu ngi Syrie ana kon lañu doon xeex jeex na du jeex ba yawmal qiyaamati est-ce que hadis boobu laa yazaalu al ummati zaahiriina alal haqq laa yadurruhum man xazalahum benn mbooloo mu ngi ci kaw suuf ci dëgg rek la ñuy jàpp lu ñu néew néew doole kenn du leen mënal dara ci dëgg boobu rek la ñuy may lu ñu néew néew nag kenn du leen mënal dërëm mais moo ñor xoolal tey lu garaaw mooy Europe Europe seen doom yi ñooy ñooy démissionné seen liggéey di dem Syrie di xeex xoolal France am nañ ci ñaata Angleterre am nañ ci ñaata français yi sax ñoom dañoo tiit bi yégee ne seen doom yi ñu ngi Syrie di xeex ministre bi dafa génne communiqué mu ne waaye ñoom dafa bu ñibbi si lañ toog foofu bi moom bu ñu ñëwee rek ci kaso bi lañ leen di condamné à mort ba ñu dee voilà tey ñun waxuma ñun jullit de waxuma ñun waxuma ñun nga xam ne suñu juróom-ñaari maam ay jullit waaye nga xam ne dañoo ñooy bàyyi lépp xoolal tey ku nekk France yow tey ku amoon benn mbokk rek mu nekk France mu ne la bàyyi naa liggéey est-ce que yow normal nga wala mu ne la non dama jël sama bagage damay ñibbi Sénégal ñu léegi ku nekk France bëgg a ñibbi Sénégal wala jóge Italie damay ñibbi Sénégal loolu la nit ñi di wax kii wérul kii normalul est-ce que liggéeyuñ ko waaw léegi xool maa ngi wax dem ci bomb yi boobu mu ñëw Afrique mu dem ci bomb yi bi ñu daal xam na lu ko fay xaar kon loolu lenn de Firaw na dafa yaakaaroon ne su reyee njabarkat bi wala mu rey doom yi doom yi ak ñi ànd ak Moussa affaire bi day jeex doom yi nit ñi mu tàmbali di rey reyam bu mujj bi lan la dafay dafay rey góor ñi pour noot peuple bi parce que xeet boo gis ñuy révolté góor ñi ñooy révolté ñooy nekk ci kanam soo gisee tey Afrique wala pays yu mel ne Sénégal mënuñu révolté c'est parce que nootu ñu leen ci ay bomb mais nan lañ leen noote ci po caaxaan ba nit ñi duñu xalaat indi leen ay melokaan yi ay festaak ay làmb ay musique ah ay caaxaan tuur ko seen kaw ba su julli jotee duñu xalaat su jaamu yàlla jotee duñu xalaat koo gis lu muy xalaat mooy nan laay def ba am xaalis nan laay def ba am oto bu rafet takk soxna bu rafet yooyu moo nekk suñu bopp te yëpp ci kaw bi lañ ko jaarale ba pare nag yombal na ñu caaxaan yëpp nag fi mu nekk nii boo amoon juróom-ñaari tukk si ndalam rek boo demee ambassade États-Unis ñu may la visa juróom-ñaari tukk si ngalam xam nga tukk si ngalam ak ñetti sabar ak ñetti càkkaaba rek boo demee ambassade France nga nii am benn soirée bu ñu war a tëgg yi fële quoi Bercy visa ñu ne ñaata ngeen ñu ne 14 jubilé waaye boo ngaa doon yow kenn sa téere na moom dem France jàngi ñu ne lu mukk étudiant yaa ngi laaj ñaata musicien la ñuy may par jour visa jéem ko lu tax du ñu may lu tax du ñu may ñuy may étude ci càkkaaba yi du ñu may étudiant yi wala dañu ne damaa bëgg liggéey ñu ne mukk mais boo bëggee fooy yóbbu la parce que xam nañ ne bu ñu la yóbbee ko da nga gën a nekk kàccoor soo paree nag ñu indiwaat la fii nga détourwaat xeet xeet bi encore ñaata ñaata ñaata jullit ñu ngeen gis ñu jógee Afrique dem Europe wala ñu dem fu nekk ci àddina bi ah bi ñu gisee waa dëkk lan lañ nekk ay yahud yu kon ñu seen jikko daanaka ñoo leen di gën a bon ñoo leen di gën a yées barki démb dégg ngeen suñu imaam yi ci weeru koor gi ambassade Israël daf leen invité woon nga ko nit ñi di wax ñoom ñu def lu ko gën a fiiree mooy moom leen invité la mu waxoon ak ñoom projet yi ñu bëggoon dafa leen di ngeen di ñëw foofu ñu mel ne ay visa ñu dem ak ñu leen di ñëwee si est-ce que yaakaar ngeen ni imaamu Sénégal mën nañoo dem di lijjantil waa Palestine jàmm loolu nañu waxante dëgg rek ma ne imaamu Sénégal yi mën nañoo dem ci Israël di lijjantil Palestine signature jàmm wéer ma ah mën nañoo dem naan Israël bàyyi ñi ngay arrièral tuuti arrièral bàyyi bàyyi ñi ci bañ nangu leen nañ wax dëgg nañ wax luñ tuuti woon ñu bañ a tuur julli di lëndëm seen bopp la ñuy nax naku ñu julli ci man maa xamul luñ fa uti woon yow yaa ko xamul waaye kii xam na lu ñu
ñoom ñoom seen conférence de presse bi lan lay wax.
waaw dañ doon weddi ne ñoom dañoo demoon pour signé ji jàmm ñun ñoom mën nañu signé ambassade kii jàmm Palestine jàmm mën nañu ko tamit.
bokkul sax sa pays yi wala sa biir.
et puis bu fekkoon ne loolu la est-ce que imam yi ñooy dem di signé ji loolu c'est un problème nañ wax rek dañoo bëggoon ay ay ay projet bu ñu nax fii xam nañ dëkk bi ay projet rek lañ bëggoon ñu dem signé leen waaw ndeysaan ndeysaan nan lañu yàlla dimbali c'est ça julli di war na jàngaat seen diine bu baax ba xam pas-pas yi gis nga li ko war a yëpp mooy ñàkk am tawxid gis nga ci ci tawxid dafa am aqidatu alwala wal bara gis nga loolu bu leeru sa bopp doo xam yow ci julli di koo war a àndal ak yéeféer yi koo war a bàyyi wala war a nga gis jullit bàyyi jullit dem ànd ak yéeféer parce que xamul alwala wal bara Firawna tàmbali na ay reyam Moussa mënu ci dara lan la wax peuple bi dénk leen mu ne leen muñ leen muñ leen rek loolu rek moo ciy génne muñ leen Moussa wax na ay nitam istainu billahi wasbiru inna al arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wala aqibatu lil muttaqin muñ leen waaye na ngeen sukkandiku ci yàlla na ngeen yëg ne suuf si firawna moomu ko innal arda lillah loolu la chaque jour buur yi di fàtte président yi ñoom bu ñu faloo rek dañuy jàpp ni yëf yi ñoo ko moom dem leen tey ci mbokki Senghor yi ngeen laaj leen bi fi Senghor nekkee lan ngeen yaakaaroon ñu ne ñun ñoo moom Sénégal mais dem leen ngeen laaj leen tey suuf la ñuy mëkk kooku sax dafa sori wala Ablaye Wade tey bi mu fi faloo rek ñaata at la yaakaaroon ne moom moom Sénégal tey moo ngi nii doomam moo ngi ci bas bi chaque jour nii la ku falu da nga yaakaar ne yow yaa moom àdduna lu la neex nga def waaye àdduna moom boromam mooy yàlla inna alhamda lillah yonent bi bi muy bind Musaylimatul Kazzab lettre Musaylimatul Kazzab dafa bëggoon nax yonent bi mu daal di bind yonent bi lettre mu ne moom yonent la mu bind yonent bi lettre mu ne innahu min Musaylima nabiyullah ila muhammad nabiyullah faalam an al arda qasamnaahu qismayn qismun laka wa qismun lii mu ne maa ngi bindi lettre bi lettre bi mu bàyyi ko ci musaylima yonent yàlla jëm ci muhammad yonent yàlla léegi lan la bëgg ko ci ñaari ibaara yooyu mooy mu wàccee comme reconnaître naa la en tant que yow tamit prophète nga man man nangu ma maa ngi gën a suuf si dañ ko xaaj ñaari xaaj benn parti bi nga jël ko nga nekk président beneen parti bi ma jël ko jàmm ne ñooy yeneen bi daal di wëlbati fooy bi daal ne innahu min muhammadan rasulillah ila musaylima al kazzab faalam anna al arda lillah wala waxu ko li xismay di de faalam anna al arda du man du yow lillah suuf si yàllaa ko moom moo koy moo koy mujjël ku ko neex inna al arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin daal di def kase daal na yóbbul leen ko Moussa loolu la dénk ay nitam ne leen bu leen yaakaar ne suuf si firawna moo ko moom firawna mii ngeen gis ne nguuram gi nga xam ne dëpp na àdduna ñépp a ko ragal ba naan ko yaay yàlla bu leen ko tiit ba ngeen yaakaar ne moom moom moom suuf si suuf si yàllaa ko moom gis nga loolu moo tax chaque jour su ngeen gisee noonu yàlla yi duñ bëgg julli ñi di jàng alxuraan parce que alxuraan dafay ñëw fekk benn waay boo xam ne dañ koo garde ba weñ du ko ñemee laal mu ñëw ne la du dara kii ngay ngay ragal du tus lan lañ yaakaaroon ne jamono firaaw na moom suuf si am na fi ay dictateur yoo xam ne ci ci weer yu mujj yi ci at yi kenn ñemewul woon ñuy génn ci télé nga fay télé bi amoon na ay président wala ay buur ci ay dëkk arab ci Afrique ak Asie ñuy génn télé nga fay télé kaso yi ngay dee eh dama ngoon ma paaba dama dama te dama yow woon ma paaba ndeysaan fan la mujjee tey ñooñu ñi dee nañ ñi daw nañ maa ngi déglu benn bande Cheikh Abdel Hamid Kishk bu mu doon ñaanal Kadhafi Kadhafi dafa toog ba ci ak benn bis rek mu ne damaa bëgg dem Égypte ñu jaay ma bàmmeelu Gamal Abdel Nasser ma indi ko ci biir Libi ma tabax ko musée nit ñi ñëw di ko ziar comme ni ñuy ziaree bàmmeelu wala xada fi eggoon na foofu bi ko boroom xam-xam boobu di tontu ci xutba jumaa la woon bi mu ko tontoo li mu ko wax ba pare ñaan ba ba ba tontu bi jeex mu ne ko maa ngi ñaan yàlla bis ñëw sa bàmmeel kenn du ko tiim kenn du xam fu mu nekk keroog bi ñu lay xale bi kenn xamul fu mu nekk waaye indi dina 40 ans ñu ñaane ñaan bi ko yàlla dina ko am 40 ans kenn moom xaw na fi ko suuf te li ko ne woon ca désert ba ñu sànni la ca désert ba kenn du tiim sa bàmmeel kenn du ko xam ci àdduna loolu loolu ko yàlla waa jooju ci dundam ñi mu ñaanaloon ñëpp lim leen ñaanal dal na leen dana leen yàlla dimbali walakin al muskila ayuha al ahbab problème bi mooy أن أكثر الذين آمنوا مع موسى عليه السلام بعد قتل السحرة هم مجموعة من الشباب الصغير وقد امتلأ قلوبهم خوفا من بطش فرعون والتعذيب problème bi mooy keroog ba Firawna jàppee njabarkat yi rey leen ci kanamu peuple bi toroxal leen noonu peuple bi nga xam ne ñoo àndoon ak Moussa ay xale yu góor ñoo ci ëpp seen xol yi ragal Firawna da cee dugg ndax lan ndax li bon ni muy torturer doomi bani Israël yi gis nga tey ci àddina bi foo dem nga xam ne lislaam mu ngi yëngu kaso yi dañuy jël sabab yi jullit yi di leen fa dugal di mbugal mbugal yu métti góor ak jigéen démb maa ngi lire Facebook am na benn cheikh boo xam ne démb lañ ko libéré mooy Mouhamed Ayreki démb lañ ko libéré moom démb la génn kaso Arabie Saoudite am na fi keneen ku su Khalid Rashid 15 ans lañ ko tëj tëdd na 10 ans xam nga kii ki ñu libéré démb lu mu def problème bi bi mu commencé Égypte dem na fa jiite fa jumaa def benn xutba mu ñëwaat ñu tëj ko kaso te pourtant dafay def kële waa Danemark ñoo doon xas yonent bi mu riposté ñu ne ko lu tax ngay fay jàpp ko tëj ko kaso waxu te waxuma foofu rek Égypte tey bu ngeen fa defee kaso yi dafa fees dal dal dal ak ay ndaw yu jullit góor ak jigéen te dañuy violé ko jigéen ñi ci biir kaso kenn du wax parce que nit ñi dañuy jàpp ne ci torturé ak mbugal ak rey ci la nit ñi di bàyyee lislaam fekk dañuy ndax seen bopp borom bi tabaraka wa taala mu ne fa ma amana li muusa illa zurriyatun min qawmihi ala xawfin min firawn wa malaihim an yaftinahum wa inna firawna la aalin fi l ard wa innahu la min al musrifin maanaam bi nee na ndeysaan nit ñi sori nañ Moussa lu wax tax ñu sori Moussa lu dul benn njaboot bu ndaw ay nit yu tuuti ñoo topp Moussa ndax ragal firawna ak mbooloo balaa mu leen di fitnaal borom bi nee na wa inna firawna la aalin fi l ard firawna day dafa kaweelu kaweelu boppam ci kaw suuf waaye wa innahu la min al musrifin ci yàqkat yi la bokk borom bi newaat Moussa Moussa di delal xel ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba ñooñu seen imaan mën a sax ñu bañ a ragal firawna bi muy dalal seen xel ñooñu ñoo ko tontu seen bopp qaalu uzina min qablu an taatina wa min baadi ma jiitana ñun de avant ngay ñëw ay jaam la ñu defoon ay islam ñun ñoo doon defar lépp ñooy bale mbedd yi ñooy raxas tali ñooy tabax ñooy taxani ñuy def lépp lu metti lépp banu Israël ñoo ko doon def te duñu bañ te ku liggéeyu ñu tëj la wala ñu rey la kon lor nañ ñu balaa ngay ñëw ak bi nga ñëwee kon loolu yow indiwoo ko bal fi nga ko fekk kon bari Israël son noonu nañ de waaye xoolal fi leen yàlla jële ak li ñu fay yàlla waaye ci seen wax jooju yemuñ ci qaala asa rabbukum moom Muusa mu tontu leen an yuhlika aduwakum wa yastaxlifakum fi l ardi fa yanzur kayfa taalamuun kayfa taamaluun muñ leen amaana borom bi tabaraka wa taala dina alak seen noon dana ko rey su yàlla reyee noon bi lu muy def mooy yéen ñi mu wuutal leen ci suuf si mu xool nag yéen it luy seen taxawaay lu ngeen di def kay fa taamaluun loolu moo tax saa yoo wuutee nit saa yoo wuutee nit nga wuutu ko fi mu nekkoon ñu ngi xool ci yow lan la mu fi nekke woon waa yow loo fi war a nekkee fii nag bëri na ku naan bu ma fi nekkee boo fi nekkee li gars yi doon bañ lu ko piir ngay def doo ci dindi dara bal na ngay yokk loolu chaque jour ngeen gis ko su ma fi nekkee waa jii dara la fi deful lu baax nga ñëw toog ñu ne la ah yaa ko waxoon de nga ne maa ko waxoon waxee chaque jour ngeen gis ko ci àdduna la parce que nguur dafa neex day néew nga gis gars yi di def di noos nga ñëw toog gisoo nguur gi fi mu ne ku yuuxu rek bu la joxee poste nga noppi nga toog lu tax parce que da ngay dugg du benn da ngay dugg nga gis mu neex trop te soo waxee ñu ne la génnal ci biti moo tax da ngay noppi du jeex ay téeméeri téeméeri nit mën nga leen lim ko ñoo bëri xoolal kooku mardi bu nekk dana génne CD mardi kenn daawul woon liggéey ci jamono Abdoulaye Wade muy yëg Abdoulaye Wade lu mel ne mexe xaw ma xeme tey kenn yégatul ni sax mu ngi Sénégal est-ce que moom kese la ak ñi daan génne ay livre rek ah la hawla wala quwwata illa billah ku nekk di wax tey anañu ba gars yi gëm leen dafa ne bu ñu foloo Sénégal waa Sénégal àjjana lañ jëm tey ñoo ngi nii di gën a xam ko ñoo ngi gën a sonn moo ngi gën a métti kon mbir mi du ci ñoom de kaay leen ñu gëm yàlla bu ñu gëmee yàlla ñun ñëpp dañuy jiite danañ gëm yàlla bu ñu gëmee yàlla ragal yàlla ci ñun Omar ibn Abdul Aziz bi mu nekkee président amirul muminin li mu jëkk a def mooy mu fal ministre boo xam ne xam ngeen lan mooy ministre boobu muy liggéey ci ginnaaw mu fi lay boo Omar toogee ci palais toog ci fauteuil bi jàkkaarloo mbooloo yoo ministre bi ci ginnaaw lay nekk day jékki-jékki rek daal di koy xët ci ginnaaw fii ci dopp li su gëstoo mu ne ko ittaqillah ragalal yàlla ragalal yàlla kooku loolu lay liggéey est-ce que ñun suñu président yi am nañ ku leen wax ittaqillah bii leen ma am ngeen seen président yi kan moo leen wax ittaqillah kenn du leen ko ab Abdou Diouf mos na wax ne Sénégal du mos a nekk état islamique dañ ne ko pourquoi mu ne parce que ñi ko war a def duñ ma ko wax ñooñu buñ ñëwee seen projet lañ may wax ma financé leen ñu def dëgg maanaam l'islaamu Sénégal ñi ko waroon taxawal ñoo ko daaneel parce que kenn du wax mbirum lislaam fi ko nekk kuy wax rek sama kër sama kër sama kër kenn du wax sunu kër gi non sama kër rek kenn du wax sunu mbir mi sama mbir mi rek maanaam mbir mi tudd lislaam bi xam nga ñëpp ko bokk ah léegi amul ku koy waxal dégg ngeen fan yéen kii kii góor jigéen sabar góor jigéen xaw ma soirée góor jigéen yi dégg ngeen ko dégg ngeen ko de dégg ngeen soirée góor jigéen ñi semaine bi passée góor jigéen ñi dañoo bëgg a tëggoon soirée invité mbër yi mbër yi bañ xam ne bu ñu demee dañ leen di wax ay góor jigéen géen mbër yi bañ am na benn waykat boo xam ne dañu dañ naan góor jigéen la am nga góor jigéen yi ñuy def tëgg seen bopp soirée bi daf lay yëg loolu parce que xam nañ ne ku fa dem ñu ne ca nga bokk ña ñu woowoon ñëpp bañ a dem mais ca lañ bokk parce que góor jigéen ñemewul fekk imam bi naan ko kaay kaay ma jox la carte d'invitation wala nangam bi góor jigéen bu mu am fit balay woo ci mbiram rek ci nga bokk wala fi nee nañ bukki bu yebee ponkal ci doxin ba boo amoon yenn melokaan yi jullit bu yoreem yenn melokaan yi kenn du jàpp ci koñ bi di la woo yéen a ngi di toog kan ci yéen fii seen koñ ñu xam ko ñuy collé dara ñu ñu ko soutien wax leen ma ko jawar mos nañ leen di daal soutien Diawara mos nañu indi carte soutien góor gi yow imaam parce que xam naa fi nga xam ne yàlla moom bu doon bind tur yi bàyyi ne ii wax yu boobu nag tamit wax wax wax la xamoo kooku kon kenn du koy waaye bu ñu xamee ne yow ci caaxaan yi nga bokk wala dangal ci dañ leen ci bind ay kooku mu ngi xuloo di kooku mu ngi xuloo di waaw wax na dëgg de am na nit ñoo xam ne boo leen xoolee war ngaa xam ne fii bu ñuy jaay tamit cigarette du fa am kon kay bu mu ne maa tooñ sama bopp xamoon naa ne jël sikki bi du ngeen jaay cigarette ah ah waaw waaw ñëpp kay caaxaankat yëpp képp kuy caaxaan bu gisee nitu dëkk même bu yoroon cigarette bi nii sax di ko tox di ko tox ba ni tëll dajeeg yow ci mbedd bi nu muy def bu fekkee ñenn ñi dañ koy sànni wala ñu dëpp wala ñu làq ko ba nga kii ñu masqué ko après ñu doog a dem parce que loolu moom mooy dëggu yàlla kon mbokk yi loolu mooy dar sa tey incha allah la ci des ba beneen àll ba ba ñu yeggali ko ñu fàtte samedi am nañ tafsir incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah.